seen ak xool na ma leen mais boutique Sénégal dañoo triste quoi boutique bi xool no barki no boutique bi non boutique bi barki rasulaay boy Alpha Alpha Blondy si biir bi soo lii non Sénégal moo xool Sénégal rek la am Sénégal moo neex xam nga Sénégal neex Sénégal xam nga xam nga jaxal waa Sénégal dañuy mbëkk pour dem Espagne waa Guinée ñëw waa Guinée ñëw di mbëkk pour ñëw fii non adduna garaaw na non ah. léegi ah. da ngeen da waaw ah. léegi ñun Sénégal. waaw français moo suñu pari. waaw léegi Guinée Sénégal mooy seen pari. non mooy seen pari kay eh eh jonni moom. jonni moom parce que ñun Sénégal. xool Mbappé xool xool booy ko Mbappé xool ko moom Mbappé wax Sénégal ne 15 millions habitants la. Hmm. ñun 12 millions lañ. waxal. kay kii yow lay xaar. non booy taxaw non non kii damay may scratch. jaama trois excellence en attendant. bàyyi leen bàyyi leen tooxaay xaalis ne paa paa bu ñàng boobu ñu def cigarette si. paa boobu daal paa boobu xam nga ko fay may jar ko paa bi triste la. waaw toog na ba retraité de. mais xamuñ ne xool parce que bu ñu defoon néew sa gars yi la ñuy toog xamuñ xamuñ ne nit nit xool nit loo ko tere. loo ko tere si lay dem. xamuñ loolu bu ñu xëyoon bu ñu xëyoon ne nii xool bu ñu xëyoon bu ñu xëyoon tey ji ne yàmbaa tox ko noonu kenn du ko tox mais nit boo nit boo koy tere dara day xëcc pour dem ci dama mel ne doxaan gel rek yaay ji dinañ ko tere gel bi day day fàq di ñëw mais bu yaay ji ne bàyyi naa ne rek ngorali tas waaye wooyu wa xam looy may même scratch bi wala bi boos la xaar dama ñëw dama ñëw ay sigaret bi sax damm ko ay ay jël ma carte d'identité la police laa gën a eh est-ce que fay impôt Melo saya neko sih. Mbappe. Kylian Mbappe. Tagal, mau sekarang sih Kylian Mbappe. Ya budi gua kalau budi kom anggar. Budi gimana dua i. Oh, Senegal budi nyawa nyawa. Oh, budi bi. Paling nyawa nyawa, boy saya. Nu budi kom anggar. Ya, sipit wae. Ini sekarang. Ah. Hmm. Ah. Ah. Hmm. Hmm. Hmm.